salaamaaleykum mbokk yi di safoo di seetaan Thioker TV euh, ba tey rek kon nu ma leen ko waxee woon saa su ne mbégte lay am at contentement à chaque fois rek jàkkaarloo waatat at yéen ngeen ànd ak ki nga xam ne que ne macha allah macha allah yaakaar naa ne miin ngeen ko ci écran bi ñu koy wax Touna Lisa tey nag dama am ñaari ndaanaan yoo xam ne noonu ñu doy waar a ngi nii boo leen gisee nga xam ne sax ñii ñu doy waar nañ euh, xam naa rek dama leen di dalal si li nga xam ne que ne moo di Thioker TV rek ñu daal di wéyal waxtaan bi. Defa maa ngi lay nuyu dina dalal si Thioker TV. maa ngi lay fay saa man la Defa Defa bu def ma ma def maa ngi nuyu waa Thioker TV yëpp di la nuyu yow di kontaan lool ci ñëw fi teew waxtaan ak yéen. ñun tamit aussi ñu ngi lay fay lu bare bare bari di kontaan aussi euh, xanaa ma daal di nuyu sama sama beneen jong ma bi waaye ndel bi laa bëgg mu woon ma ko mais nee na ma ko wan <laughs> non ndel bi xam nga des fois day jël congé instant yi vacances lañ nekk dama koy bàyyi mu vacances tuuti. Ah, kon ndel day am congé. sama bos man day am. ah waaw waaw waaw kay insister ci loolu. <laughs> maa ngi lay fay maa ngi nuyu di nuyu euh, ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu sa caméraman bu baax bi tamit euh, di la nuyu des fois man nuyoo ma mais man dama lay nuyu quoi tu vois di nuyu waa waa Thioker TV di kontaan trop ci dalal leen nag. macha allah sama <laughs> toogaay. non man tey que dama dama jongama c'est c'est le travail de maman et euh, bénédiction de papa voilà c'est ça. <laughs> naka mami laa bëgg des fois est nga dama lay bàyyi. Eh, waaw waaw am problème. waaw yow laay nga ma <laughs> nga dama ko rek. dama yeewu rek bu temps so sonn ma insisté sax. Ah. defuma defuma trop d'effort franchement dama ko kii rek. <laughs> non tey dama am ñoo xam ne non ñii daan bàyyi ma bàyyi leen rek ngeen gisoo seen bopp parce que lii mënu ma ko wax. defuma effort yu bare noonu te pourtant gars yi ñu ngi koy wax nag romb naa quelque nit ñi daanu leer affaire yi j'ai pas compris. <laughs> am na ñoo jot a daanu naa. waaw may na lu xew. Mhm. ndekete man la. ndekete yow xamoo woon li xew. xamoo woon après laa comprendre bi ma accès fii laa ne ah moo gis seetu bi sama bras sama jongoma bi la nekkate <laughs> man ji laay wër euh, Defa tey su ma bëggee xam kan mooy Defa Defa fan la débuté lan nga may wax waa Defa benn xale bu jigéen bu bu bëgg musique bu am ambition yu rëy Defa benn ndar-ndar la aussi Saint-Louisienne jóge ndar yàgg tax nga jonga ma. la noonu la demee nag secret bi loolu la. ne Saint-Louisien yi damay dañ may rax foo jógee damay dox sax ñu naan ma dëkkoo fii yow fan nga feneen foo dëkk. sa vie nag sell naa ko ne non du Dakar. fi Dakar fii ndar ndar la. voilà <laughs> jógee voilà ñëwee Dakar depuis 2015 maa ngi fi. di xam nga di di musique di kër fii di def ay affaire di jàng. Mhm. ba tey yàlla def euh, ma daje ak mami. Euh, ñuy ñu xamante macha allah nekk ay gaayen balaa musique nag di jógandoo di daanandoo di ko di ko jaayante ba tey fii nit yi commencé di di découvrir des fois nànk-nànk voilà noonu la demee. baax na léegi xaaral ma tourné ci mami daal di ñëwaat <laughs> mais dafa fàtte préciser ne avant ñuy xamante. Mhm. da man dama fekk mu nekk ndaanaan ba pare bëri fu mu jaar. waaw bëri na fu mu jaar defaa tey bëri na ay morceau yu bëri yu ñuy bi biir Sénégal fii nii tey mm-hmm. moom moo ko rafetal moom moo ko harmoniser moom moo ko kër mm-hmm. lool da koy da koy fàtte wax des fois mais man dama ci dama ciy insister damay insister si ndaanaan bi mu nekk donc euh, voilà sama sama sama la daal sama booy bu cool la vraiment. Euh, tey su ma bëggee xam kan mooy mami lan nga ma mën a wax ci sa bopp. waaw mami fan nga débuté balaa ngay dugg ci li nga xam ne que ne moo musique. waaw mami day benn jaamu yàlla la bu bu yàlla def artiste mhm. donc euh, man bien avant may débuter sama carrière j'ai commencé par la danse j'ai commencé avec Oscar des vacances mhm. parce que maa ngi dëkkoon pop donc maa ngi doon fecc jaon waagu ñaay mhm. et ça c'était en 2003 maa ngi nekk xale bu ndaw donc par la suite j'ai continué mes études parce que dama yor papa boo xam ne moom il insiste beaucoup sur les études par la suite ci laa commencé ndànk ndànk di rabantu sama koñ ak sama ay. naka jekk mën a rapport nga woon de. <laughs> xam naa xam naa des fois da koo da koo fàtte woon wax. <laughs> waaw loolu la donc on a commencé à des sons en groupe xam nga tëju ci benn néeg temps boobu noonu ordinateur pencum kaat yi moo amoon. waaw ma doon def yee xam nga waaw wala <laughs> boog xam nga waaw yaa ma gën xam donc euh, c' après que j'ai commencé à fréquenter le label Didi Record mm-hmm. de par euh, Karim Xurum Xaak muy sama frère ma koy ma koy nuyu bu baax au passage di ñaan yàlla nattu bi ko yàlla teg euh, mu teggil ko ko ci jàmm moom ak ku mel ni nit doof suñu ay frère lañ ñoo bokk milieu bi ñuy bi ñuy évoluer donc euh, j'ai commencé à fréquenter le label Didi Record noonu la intégré label bi premier son bi ma def maa ngi ko def ak benn groupe bu tudd Hardcore Side Celebrate Hip Hop le son bi tudd par la suite ci lañ commencé def les Saturday freestyle mu nekkoon affaire bu virale ñu nekk ci milieu rap bi peut-être xam nañ li may xam nañ li may wax par la suite lañ génnee Femme man ak OMG et c'est à partir de là que ma carrière a débuté voilà c'est ça ba di defee def ma ma def macha allah <laughs> euh, des fois gis nañ que ne macha allah nga bokk at ki nga xam ne que ne moo di mami euh, ngeen bokk métier bi xam nga loolu c'est pas évident. Mm. te nekkul loo xam ne aussi lu yomb la. Mm. tey lan moo leen motiver euh, ba yéen ñaa ngeen bokk benn groupe bokk mm. aussi di way ak ni ma leen gisee nii nga xam ne macha allah boo déggee dañ naan ànd jigéen ak jigéen nekkul loo xam ne c'est pas facile. alors que bi ma leen gisee yéen ñaa man sax dama ci kontaan. loolu lan la la def. waa mën naa ne xaaruñ ko woon nag dee wax dëgg yàlla rek newul lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu sàkku te loolu mooy mooy mbir mi loolu mooy mbóot bi new newul loo xamante ne maag moom ñoo ko xëcc wala ñoo ko ñoo di yàlla moo ko def su ma ne yàlla moo ko def mooy c'était naturel bañ na ko ba dafa naturel ba ki ñu wax dudu sax ki ñu produire man ak moom ki produire def ma ma def moom moo gis suñu ànd bi mu neex ko mu ni yéene sax xam ngeen bu ngeen defee duo day rafet te mën ngeen jël seen musique ngeen yóbbu ko fu gën a sore Sénégal kese ñun tamit naturellement on s'est dit waaw parce que déjà ñun dañuy daje studio on moom buy def son man day mel ni son son la man tamit su may def son day mel ni son la da ciy sonn déjà ku nekk da ngay sonn sa yëfu mborom la on sé dit ñun jege kiiraay la rek ñun gisuñ ko woon mais yàlla moo yónni Dudu moom moo appuyer foofu insister après on s'est dit xalaatuñ sax dañoo ne waaw ci saa si newul loo xam dañ toog naan est-ce que nii est parce que bàyyi ñas tooguñu fenn xalaat ay on va réfléchir waxtaan ak suñu njëgënaay fekkuñu si daf ko wax rek ñu ni ko waaw amuñu njëgënaay donc après automatiquement on a dit on le fait on a commencé après ku si nekk yaa ngi sa fan base am nga sa fan base bopp en tant que Defa moom tamit en tant que Mamy Victory rappeuse bu mag nekk queen fi Sénégal maa wax <laughs> yaa ko wax. maa ko signé queen bi waaw mooy queen bi. ñu gars yi dañ koy bëggee macha allah moom tamit am na fan am ñu boole suñu doole. pour mën a nag indi drapeau yóbbu drapeau Sénégal fépp si àdduna bi te yàlla def na ni macha allah mm-hmm. ñu ngi si liggéey boobu ñu ngi koy def nànk-nànk macha allah. Euh, mami gis nañ aussi que ne yow euh, sa sa sa way bi ngeen di way nekkul que ne Sénégal kese ngeen yam parce que gis naa si vidéo yi ngeen ma envoyé mm-hmm. euh, yéen a ngi si diaspora bi lan moo leen motiver ba ngeen dugg si li nga xam ne que ne moo di diaspora bi. waaw xam nga en tant que jigéen et en tant qu'artiste aussi ñun dañuy am dañuy am mbégte saa su ne di représenter Sénégal fépp fu ñu dem parce que boo xoolee. depuis ci suñu mag yi ak suñu papa yi dañu am problème mu gis Sénégal ci yenn scène yu mag yi yenn festival yu mag yi en Europe et un peu partout dans le monde donc on s'est dit qu'en en tant que femme day baax ñun ñu xàll yoon bi pour ñi nga xamante ne nii ñi ngi ñëw après ak ñi nga xamante ne nii ñoo fi nekk il faut que il fallait qu'à un moment mu am ñu représenter Sénégal waaw mu nekk nag sas pour ñun mësa nekk aussi ambition ak vision bu mag pour ñun donc euh, à travers euh, un marché de la musique bu tudd DMX ci la ñu ci la ñu postuler présenter fa suñu spectacle yàlla def nag ci lañ amee suñu ay suñu ay tournées yu bëri on s'est dit bon ça c'est une occasion quand pour euh, pour créer musique Sénégal benn affaire bu spéciale bu bokkul ak li ñuy gis fii parce que y a des réalités yu am fële bokkul ak li am fii donc day baax des fois nga def recherche créer un truc spécial bu lay permettre nga mën a exporter musique bi donc ça c'était un challenge pour nous c'était plutôt un challenge waaw. mais euh, rap bi genre euh, ci la bokk wala parce que des fois day mel ne gis naa seen son bu mujj bi da ngeen see boole tuuti mbalax. waaw waaw xam nga ñun nag ay artistes lañ nous sommes des artistes et en tant qu'artiste amul art amul limite art amul barrière seule limite bi nekk si artiste artiste si si art artiste boppam la mooy utal boppam limite. te en tant qu'artiste aussi da ngay redécouvrir des fois des fois muy am luy nelaw ci yow man def man par exemple woy yàgg na nelaw ci man aw ma woon ku ma ku ma may ma exploité sama talent yi ma am ci woy il a fallu ma rencontre des fois commencer liggéey ak pour ñu xam ne xam nga man am na benn voilà am na benn talent wu leneen lu dul lu dul rap bu nekk ci man donc euh, loolu la des fois da ngay redécouvrir sa bopp et puis day laaj nga def lu fën parce que aar boo koy def aussi aussi tu t'amuses yow ci sa bopp dangay ngay bëggal sa bop parce que yow boo bëggee rek keneen ku la déglu xam nga dina mën a bëgg musique moo mel noonu luy jóge ci xol la du dem li di dem ci xol donc bu fekkee yow da nga xëy rek taasu jóge sa xol nga war ko taasu mu xumb. non keneen ku ko déglu day naaj si. dooma taasul fii yow daa yow nga mënee. waaw loolu nag dañ koy bàyyi mu nekk benn genre surprise boo xamante ne parce que am na lu ñuy waajal loo xamante ne zumba zumba zumba zumba ma ne <laughs> xew-xew mi ngi waaj a am loolu nag bu amee en exclusivité fii ci Thioker TV lañ koy njëkk a génnee ngeen gis ko bu boobaa ñu pelloo ak yow nga gis beneen def ma ma def beneen mami beneen defaat mhm. yooyu noonu yëpp mën na ne ak waa Thioker TV maa wax lii zume ma maa <laughs> waa baax na dinañ xaar loolu euh, mami tey dama bëggoon xam yéen ñaar seen look bi parce que moom dafa watu mais dafa def raas moom ndelul mhm. damay préciser moom ndelul mais yow danga ngaa ndel <laughs> léegi dama bëgg xam yéen ñaar da ngeen ko waxante wala dafa nekk loo xam ne ci seen kër la parce que dama gis que ne sa look bi c'est rare nga gis sénégalais bu ko def benn sénégalaise bu ko def euh, c'est rare nga gis ko bu amee tamit euh, mën naa ne taxu ko bari noonu euh, tey ñu gis ko ci benn artiste comme yow lan moo la motiver ba nga def loolu nga def lu raar lu kenn deful. man de boo dëgg yàlla du motivation en fait mood la rek dama xëy un bonjour am moodu ndelu ma dem ci coiffeur bi ne ko wat ma ndel <laughs> c'est ça en fait c'est un mood rek du dara c'est un look xam nga des fois aussi c'est bien euh, ñu ñu seppi la parmi parmi les gens en tant qu'artiste tu peux pas être euh, tu peux pas être commun tey jii nii normalement <laughs> artiste buñ ko jaxasee ci biir mille personnes war nañ ko mën a seppi ne kii la loolu la rek artiste da ngay am silhouette. am dama bëggoon tey sandel bi nag vraiment. waa Thioker TV gis ko. buñ duggee sama insta ak yooyu noonu dinañ dinañ. parce que man bi ma ko gisee ci clip bi vraiment c'est très joli. <laughs> merci c'est gentil ah waaw loolu la rek xam nga affaire yi da ngay da ngay oser rek da ngay voilà da ngay. est-ce que da nga oser. waaw je suis artiste. je suis artiste tout pour me démarquer. loolu la rek des fois day laaj sax nga def loo xamante ni sax du yow mais li ngay def moo ko laaj. loolu la rek maa ngi nii wootu sama jëkkër sa lox. yow des fois nan nga gisee genre seen look bi nii d'habitude xam na di ngeen génn ci mbedd bi sax boo leen àndee ñu naan kan del fondron. man damay wax rek ma ni euh, su may wax rek ku mën na def dalu leen ñu xool delu ku ñaaw du ko def de delu ku rafet a koy def de kuy wax daal na def ñu xool nañ dalu rek nan maa défier sénégalais yëpp ku wax rek ku ñeme wax rek delul ba pare ñu xool yow sa ndel ak delu ma mais nañ nañ def daal on va voir. Euh, <laughs> kon baax na ñoo ko dégg no ba tey rek kon nu ma leen ko waxee woon saa su ne euh, nee naa la à chaque fois ñun dañuy am contentement at mbégte rek euh, di dalal macha allah nee naa leen ay ndaanaan ba tax na tey ñi ma dalal yaakaar naa ne ay ndaanaan lañ ñu koy wax mami at defa boo leen gisee nga xam ne que ne macha allah ñi ay jàmbaar lañ ñuy def nag lu doy waar nee naa la nit booy def dara danga koy gëm nga bëgg ko te bi bi ñu bi ñu expliqué fi nga xam ne que ne foofu lañ débuté nga xam ne ne macha allah ñi ay jàmbaar la ndax nee naa la musique nekkul loo xam ne dafa yomb mm-hmm. ba tax na képp koo xam ne rek yaa ngi ci nee naa la boo góorgóorlu rek da ngay gën a avancé te dama leen di ñaanal rek mm-hmm. yàlla yàlla na leen yàlla mm-hmm. taxawu defaral leen seen liggéey bi ba lépp lu ñu bëgg rek yàlla defaral leen ko ñu gën a avancé ba ñëpp xam leen partout dans le monde te xam naa ne sax ñu ngi si yoon bi incha allah rabi dama bëggoon xam seen relation ak artistes yi nga xam ne que ñoo nekk Sénégal. ñun de relation jàmm ak salaam dëgg yàlla buñ gisante dañuy fekk jàmm dañuy kafoore boo xoolee projet effort bi rek dajale woon na dix naan ñun ñëpp ay jigéen lañ ñu tase fa ñu ne du mën a nekk. dañoo xaw a kii ñun dañoo xaw a dëgg la dañoo xaw a spécial disons si je peux dire ça comme ça mm-hmm. suñu style suñu way suñu jàpp suñu lépp nekk à côté mm-hmm. mais c'est pas parce que dañoo dañoo wute rek. duñu laxasoo ak nit yi mm-hmm. ñun au contraire ñun lañuy laxasoo ak nit yi bare wax mën ambiance <laughs> ruube lëmbal ñun lépp la ñuy def ñun jotaay bu ñu ne du yomb mm-hmm. comprendre nga dañoo xëy na dañoo am suñu jabu bopp rek mais franchement tout se passe très bien muy góor muy jigéen ñun ñëpp ñëpp la ñu support ñëpp la ñuy bégee ñëpp la ñuy partagel mm-hmm. ñuy partagel ba xam ba partagel koo xam ne xamante wuñu sax barke bàyyi loolu moom c'est naturel en fait waaye Euh, mami en fait tey su ma bëggee xam mami kan mooy référence am si li nga xam ne que ne moo di musique. wuu man bëri naa ay référence si musique bëri naa trop ay référence si musique Youssou Ndour référence ñëpp la si musique par exemple. ah euh, Angélique Kidjo référence ñëpp la si musique képp kuy jigéen nekk africaine di def musique. donc euh, wu bëri na je peux en euh, des milliers du jeex du xaaj muy fii Sénégal muy en Afrique un peu partout dans le monde man képp kuy def musique bu nice di exporter sa musique di représenter li ngay def fépp ci àdduna bi rek référence ngay nekk ci man parce que bëgg naa egg foofu noonu man tamit tu vois des fois toog rek sama référence la parce que des fois commencé naa ko déglu avant may xamante ak moom tu mu nekkoon affaire affaire bu nice bu spécial bu ma gis si moom waaw mouchoir a ngi nii mouchoir a ngi donc euh, bëri naa ay références que ce soit dans le hip hop que ce soit dans le folk le jazz mbalax Aminata Fall bëri na mun naa citer mun naa citer ñu bëri mais tey est-ce que genre pare ngeen euh, pour ngeen bokk ak euh, clip. genre artistes yi nga xam ne ay mbalax la ñuy def. mais looloo ngi ñëw pire nga naan ma la néew. nee naa la ñun amuñu sens interdit ci li ñuy def. amuñu sens interdit ci li ñuy def ñun ñëpp la ñu bëgg ñëpp la ñuy bëggee parce que musique la ñuy dund. mais que am ngeen ay relation ak artistes yi. of course bien sûr. bien sûr yenn saa yi ñu toog sax jot courrier ma xool koo xamante ne musuma ko seetaan c'est comme ça que j'ai découvert ko d'artistes ma gis ne diw dee joué ah musuma ko gis scène musuma ko seetaan xaaral ñu dem seetaan ko ñëw bëggee saafonteeg yow parce que musique la ñuy dund dañ koy dund bien que nag ñun ñëpp liggéey lañ ko def ok mais à la base musique la ñuy dund ñun dañuy xëy suba ba ngoon jot bu ñu yeewoo la première des choses qu'on ginnaaw naan café ci kàttanu yàlla musique la ñuy njëkk teg déglu ko xool lu bees lu bees dañ koy seetaan da dañuy da dañuy bëggee donc ñun amuñu xaar ma yàlla ak benn artiste sincèrement nekkuñ sax ci ci genre détail wala genre mode yooyu noonu ñun ñun moom mooy loolu si internet bi fekk fenn ñuy ñuy wax sax duñ sax yenn questions yi sax dañ koy esquiver parce que ñun musique rek waaw te te genre suñu genre gi def musique kese kese sax topp ñu peut-être tendance bi buzz yi waxi sew yi day metti boo xoolee seen. pourquoi yéen tamit seen buzz. du après après après après à quelle fin à quelle fin parce que tey ñun maak ma mi yàlla def na on connaît xam nañ ñëpp tey jii nit yu nit yi mën a yóbbal yóbbu suñu musique Sénégal fu sori on les connaît ngay woo benn diw ne ko damay def émission da lay woo force da lay day day nangu parce que xamante ngeen sekk ngeen ko mais duñu doxuñ ci faveur ñaanuñ faveur doxuñ ci buzz xool nga ñu ni macha allah suñu benn daagu buzz la mais defuñ ko. non dëggantaan mënoon nañ koo def. Mhm. mënoon nañ ko def de barke Baye Niass mënoon nañ ko def te lu yomb la doon nekk mais problème bi mooy xam nga lan moo te loolu moom gën a neex si mami d'ailleurs mooy dafa bëgg liggéey dafa gëm liggéey te bëgg na muy man que muy moom suñu liggéey mooy def bruit mais pas ñun ñuy def bruit. mais mami dam ko gis que ne genre macha allah elle est mariée mais pourquoi pas yow comme que yéen kay da ngeen a nduroo ba ci lépp kay. pour ka toppoo ci loolu. mu ne wooy dër naa sax bëgg maa ngi bëgg léegi kon yow nga nekk deuxième femme bi waa lool la nag man Jules mooy sama jëkkër yow eh man maay ñaareelu Baye Soleil wax bi fin waaw moom bu gisee nag ku wër ku ma dénk moom nee na dina ma dénk man man damay toog rek moom mu jox ma kenn ne ma demal sëy mami nangu la waaw waaw pourquoi pas pourquoi pas ah man de wax dëgg yàlla ma am defaa wujju moo ma gënal ma am keneen ku ma xamul waaw pare dem que moom xam naa ko xam naa jikkoom xam naa ay jëfinam xam naa léppam donc xam nga moom xam nga du ñëw ci kër gi di defanteeg man moom a gënal keneen de man ay waxu man man ay waxu ñaareel man ay waxu ñaareel sax kenn du ko waxtaanee sax fii ci kër gi. waa billaay wallaay loolu la yàlla dogal xana moom sax sañ naa ko ko may mais ñun waxtaan ñun duñu waxtaanee ñaareel suñu kër. <laughs> comme nii rek genre day ko xalaatul lu muy wax nii dafay dee. kon baax na en fait euh, bëggoon naa xam ba xam am ngeen euh, at euh, relation ki nga xam ne que ne mooy Wally Ballago Seck parce que tey mën naa ne ku jug si musique day bëgg a amat moom relation wala soit ñu bokk li nga xam ne que ne moo di benn son est-ce que yéen am ngen relation boobu at moom. Wally Seck je pense qu'on s'est vu man ak moom une fois. Euh, boobu c'était lors de la sortie de kuy fëggati sama benn clip bu ma euh, bu ma bu ma génne woon on s'est une fois ma woon ko vidéo bi ñu saafante vite fait euh, jotaguñu nag liggéey peut-être avec Defa parce que Defa jot na defal Wally Seck quelques quelques si ay morceaux doon nañ tase aussi ak euh, son orchestre benn instant parce qu'on était dans le même studio période de Covid bi fekk ay mu doon enregistré ay son mais on se voyait pas donc amuñu relation demalante ak dikkalante mais dañuy bëggante ñun dañ koy bëggee wax dëgg ñun moom ambiance rek la ñuy wër waaw problème ñun dañuy bëgg dem soirée mhm. mais dañuy nelaw tout temps dañuy dañuy ma loolu rek a ma metti ñun dañuy waaj de. yow guddi gi ngeen war a dem studio di nalaw. dimanche lu dimanche en fait nattu la xam nga dimanche foog yi day wàcc mi ñun daal dañ koy pare pare pare mais gis nga bu ma samay sama kër ne mami naa ñëw pour comme ça ñu dem mais nelaw daal ma yem nelaw. caméra bi nekk ñoo ngi ñëw. wuy ma ñoo ngi ñëw de ay bés bu ñu ñëwee vogue. vogue xar ñaar waajal ñu def ma ma def ñoo ngi ñëw ñun defkat yi non dinañ jaar vogue wàccee fa foog ñu dem foofu ànd ak yow nag loolooy neex. waaw boobaa foofu day toj <laughs> xam naa léegi dama bëggoon nag comme que macha allah génne ngeen son bu neex. Mm-hmm. Euh, des fois de mu envoyé na o ko dama bëggoon rek nga ñemel si tuuti waa Thioker TV nga xam ne yéen rek la ñuy mais à part son boobu aussi dafa am ci benn affaire ndaw bu ma bëgg ñëw à part le morceau euh, xarit am na benn EP euh, e ou quatre titres bu ñu génnee c'est disponible sur euh, toutes les plateformes de streaming d'ailleurs ñi ngi waajal def le lancement justement lancement wu EP boobu noonu séance d'écoute bi vous êtes invité ñu ngi koy def le 4 août euh, au CCF le restaurant Bidéo au CCF donc dinañ def foofu noonu lancement bi xam nga defaale defaale scène dinañ def benn 30 ou cinq minutes de scène bégal gaa yi ñëw xam nga wan leen lan mooy def ma ma def parce que boobu léegi ils nous voient à l'étranger ñu ngi gis ci festival yi Europe ñu si bëri xamuñu exactement lan la ñuy def donc ce sera notre première sortie à Dakar parce que ñun yàlla def na dañu am occasion wu commencer tourner avant ñuy am album donc on a eu à faire des festivals comme le Jova Beach en Italie je vais en citer quelques euh, Africa Jark en France def nañ euh, Allemagne le Moufatwerk on a fait pas mal de de pour ne citer que ça donc dañuy waajal def lancement bi ce sera le 4 août incha allah au CCF vous êtes tous invités yow mii tu es invité yow sa caméraman bu ñaawul bi xam nga voilà voilà ngeen ñëw ñu tasaare xam nga wane lan mooy ma ma def bi dem di porter couleur au Sénégal un peu partout lan lay yóbbu exactement. Euh, projet bi en tant que tel. Sénégalais découvrir guñ ko réellement xam nañ Mamy Victory xam nañ des fois un peu lu muy def mais bi en tant que moom. dama bëgg dama leen ko yéene yéene wu ma ko kese waaye àdduna bi yëpp yëpp génne Sénégal ndax bi niñ koy enjoyé man yéene naa ko yéene leen ko trop ngeen découvrir ko gis recherche musicale approfondie biñ ci def euh, héritage musical bi ñu am bi su bi fi bi fi papa yi bàyyi ñoom sax ba tey ñu ngi koy def macha allah mais boobu noonu bëgguñu ñun bëgguñu mu dee bëgguñu héritage boobu dee looloo waral ñu relever défi ok bëgguñu nekk kese ay jeunes yoo xam ne dañuy ñëw woy nii dinañ woy nak dañ fi dem mbalaxu saf yi lëmbal yi macha allah dana alaa daaw me ñoom beeco yëpp la ñuy indiwaat ñun ñun ñun démb la ñuy wax de ñun waxuñu tey de eh ñun démb la wax donc yéene naa leen ko xaar leen ngeen découvrir mën ngeen ñu fekk Instagram Facebook partout et euh, voilà sortie officielle bi Sénégal dina nekk le 4 août bu ko defee ngeen ngeen ngeen ngeen def connaissance ak def ma ma def Euh, léegi nag da ngeen ñu may tuuti rek waa Kër TV si son yi ban son nga bëgg yow loolu ah man def ma def boobu bëgg naa ko. ni nga koy waxee nii. Hmm. ma oh, joxal ma micro bi mu ah, niw bat yàlla bi. moom mooy ah, ñaa ñëpp may leen ma ko. sow oh Maliko. Mm, bu amee eh, ah, oh, oh, mm. ñu fi jéem a yëngal demal nee leen maame eh, ñoo ngi nee di ñëw eh oh Maliko. bu amee ñu fi jéem a yëngal. maame defa ñoo ngi nee di ñëw. ah, ah mash up the thing every day mm. ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti otaake ne ci suñu way ya gaane si ñëw ya mi dañoo wax hard soccer player job bi day fay li nga ji rek nga bay sama ñàkk laa lekk I go higher. Masha Allah waaye nekk nii ngeen mënee waay man de yéen rek laay topp topp rek musique moom doo doo doo doo mës a waaw c'est c'est une étude perpétuelle quoi da ngay chaque jour da ngay découvrir lu bees musique moo mel noonu day dox donc. mais tey yow genre soo dem voyage euh, di def li nga xam ne que ne moo di foofu ay musique est-ce que doon ni si am benn problème. benn problème c'est-à-dire. genre xam nga yombul tey ngay déplacer wu. Mm-hmm. di dem si diaspora bi war a tëgg foofu noonu mm-hmm. est-ce que c'est facile ou c'est pas facile waaw bon dara yombul mais ñun wax dëgg yàlla yàlla mi ngi dimbali boobu ba tey mm-hmm. on n'a pas encore bon ñaanuma ko yàlla sax sincèrement mais jusque là on n'a pas eu de problème parce que comme ni ma la ko waxee si njëlbeen ñun dañu xaw a jaar si musique foo xamante ni nii c'est un cercle bu bokkul ak li am fii parce que tey buñ ne marché de la musique am na buy am fii Sénégal artistes yu bëri xamuñu ko ma expliquer la lan mooy marché de la musique c'est comme marché boo demee marché ku ci nekk da nga yor sa table teg sa di jaay donc ku ci nekk day ñëw xool ndugg bi ko intéressé mu jënd ko donc il y a marché de la musique fii nii Sénégal bu tudd le DMX le Dakar Music Expo c'est un événement boo xam ne day dajale de euh, des professionnels de la musique à savoir des directeurs de festivals les directeurs des centres culturels des bookers des managers yoo xamante ni rencontre la boo xamante ni chaque année ñëpp dañuy jóge un peu partout ñëw dajewul ñëw dajaloo centre culturel français. mu nekk benn événement boo xamante ni c'est piloté par Doudou Sarr ñu koy nuyu au passage parce que moom it euh, gëm nañu te mi ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax. xam nga mami tey euh, dama bëgg a teg sama baaraam foofu nga baal ma baal ma rek dama bëgg a teg sama baaraam foofu noonu parce que c'est important ñu bëri xamuñu ñu naka la ñu def par exemple ba am date yi ñu am en Europe mm. Euh, artistes yi surtout nouvelle génération bi ñuy aller vers l'information di topp ay événements yu mel noonu parce que c'est bien beau ngay def musique nekk si benn cercle di dugal YouTube di am des millions de vues mais c'est très important aussi ñeneen ñi nga xamante ne ni nekkuñu fi ñu xam ne Sénégal bari na ay talent et pour ça il faut ñuy ñëw ci marché yi di jaay li ñuy def wane li ñuy def parce que tey jii nii benn defa bu demee jouer benn massa wala benn euh, Euh, benn Walmart wala benn Womex ay marché la woo yoo xamante ne ni bu taxawee wane li muy def y a au moins cinquante bookers cinquante directeurs de festival yoo xamante ne dinañ ko découvrir dinañ ko mën a booker justement ci ay événements yoo xamante ne nii ça se passe en Europe donc ñun noonu la ñuy amee suñu tournée c'est c'est très important ñuy wax affaire yu demee noonu parce que affaire yi waroo ko làq bunt la boo xamante ni ñun jaar nañ fa te dañuy bëgg suñu ay morom aussi jaar fa et pour ça il faut aller vers l'information di postuler ci yenn affaires yi xam nga di dugg ci marché yi c'est très important c'est très important loolu. oh dëgg parce que xam nga tey c'est pas facile euh, artistes yi bari nañ ci Sénégal mm. mais am na ñoo xam ne tout le temps ñu ngi ñu ngi way ñu ngi génne musique mm. mais amuñu possibilité génn fi nga xam ne que ne moo di Sénégal alors que yéen am ngeen possibilité boobu tey ngeen génn Sénégal. tey lan ngay wax artistes yooyu noonu. waaw nañu gën a gën a gën a gën a góorgóorlu gën a indi recherche ci musique bi et puis euh, voilà puiser quoi parce que affaire yi bëri na ay bunt pour man tey jii internet c'est ouvert à tout le monde képp ku dugg internet rek di nga am information yëpp peut-être defa sax dina gën a mën a développer ci loolu noonu mais ñun ñun duñu hésiter di di di uti information dañuy xëy par exemple bind marché de la musique boo tapee dañ lay génneel yëpp nga xool fan ngay postuler loolu dina la permettre nga jaay sa bopp tey jii buntu yi buntu yi buntu yi bëri na trop waaw il faut juste xam fan la rek di déglu aussi mag ñi baax na ci di déglu mag ñi parce que ñun dañuy déglu mag ñi duñu hésiter dem xool benn mag ñëw ne ko ah ñun kat ay ndaw lañ lii la ñuy def loo ñu mën a conseiller ba ñu mën a yokk li ñuy def ça aussi c'est mag dafa mat a bàyyi ci réew mm-hmm. te baax na des fois ñu ñu ñu leen di gestu parce que ñoom ñoo ñu gën a xam yoon bi mm-hmm. waaw des peut-être dina. <laughs> moo man de soo man wax ah, en général man leen jox leen man. des fois yow lan nga gis si zone yi ga xam ne macha allah ñu ngi way ñu ngi góorgóorlu mais boobu ba léegi mënuñoo génn fi nga xam ne que ne moo di Sénégal alors que yéen macha allah catu Malherbe euh, yéen a ngi joué partout dans le monde. nan ngay wax ci jeunes yooyu yan conseil nga leen di jox. du sax nekk conseil parce que lépp mat na lépp mu ngi jaar yoon franchement lépp ngi jaar yoon boo xoolee ñun mën naa damay damay tooñ parfois ma ni sax ñun dañuy fat fee ñoom ñoom ñu fat fii <laughs> parce que macha allah ku si woote Esplanade sal ko ku si woote foo mën ku si woote Success sal ko million de vues di dàkkee si si réseaux sociaux yi musique bi changé na léegi léegi xale yi ñoo yore musique bi. gis naa loolu macha allah xale yi ñoo musique te gars yi ñu ngi musique lu neex tegu ci temps lu toj muy ñi am occasion nit yi xam leen comme ñi amul occasion nit yi xam leen ñëppay way lu neex donc xëy na euh, du déjà vu rek mooy parfois booy génn bul yóbbu li nga xam ne mi ngi fi mi ngi si biti ba pare waaw booy génn da ngay fexe yow li nga moom mooy sa cosaan nga jaay ko sa sa sa culture nga jaay ko sa sa sa lépp daal li nga xamante ne mooy tey ji bu ñu watoo quoi qu'on puisse dire africaine moo moom li ñuy def ñëpp ñu ngi naan seen watu seen watu mais africaine ñoo moom watu comprendre nga karaw bu naturel africaine ñoo ko moom comprendre nga li ñuy def yëpp boo xoolee c'est purement africain c'est purement sénégalais donc suñuy sabar la ñuy jaay suñu langue la ñuy jaay suñu suñu suñu li fi am fii muy nekk ci ngéwal gi ngéwal gi patrimoine bi nekk fii moom rek la ñuy yóbbu te foog peut-être euh, Euh, bu ñu gënee insister foofu dinañ am occasion génn génne suñu musique un peu dans le parce que jot na nag jot na de nigériens yi ñu xaar ñu ngi xaar àddina bi <laughs> ak sud africain yi macha allah te seen culture rek la ñu jaay kon jot na ñun tamit ñu manko surtout en tant que jeune peut-être fii euh, du ma wax sax fi suñu mag yi faaye parce que du fay euh, peut-être amuñu woon occasion am unité mais ñun dañuy woote Euh, unité la ñuy woote mooy ñun ñëpp ñu nekk benn jàppalante loolu mooy secret wu liggéey bu dem ku si boo xoolee respect bi euh, euh, musique américaine boo xoolee da ngay gis ñaari nit dañu duñu laale sax mais su kenn demee di jëli awards même bu fekkee duñu laale kooku day jug taxaw jox ko respect tàcc ko respect boobu noonu ak unité boobu noonu bu amee fii gëm naa ne dinañ dem tamami mi ngi koy wax sànq ñun dañuy inciter jeunes ñu dem à l'information pour xam lan moo xew ak fan la ñuy te ñun itamit foo soo demee suñu page yi di nga gis fépp fu ñu jaar rek bàyyi nañ ko fa li ñu du ñu dem fenn concert te binduñu euh, festival bi wala binduñu maison bi ñuy invité foofu tout le temps dañuy bind seen page Instagram dañuy bind on laisse tout là-bas def dañ koy def pour suñu rakk yi fi nekk wala suñu mag yi nga xamante ne amuñu occasion dem foofu pour ñoom ñu mën a récupérer information bi mu jëriñ leen donc loolu la rek unité rek nañ nekk benn pour yóbbu suñu musique fu sore loolu la rek. en fait euh, Defa dañoo gisoon fan yi yi nga xam ne weesu suñu ginnaaw euh, problème amoon na ci dëkk bi metti woon trop nan ngeen ko gisee ak nan ngeen ko dundee woon. di ko xarlu euh, dañ ma dañ ma doon sax euh, ñàkk jox accès sama réseaux sociaux yi parce que dama doon kaas rek mu wax rek. dama wax ba sonn man noonu laa mel dama mën kaas damay kaas rek laa man dama bëri wax mën kaas may kaas samay droit droit jàmbur yëpp laay boole ñëpp laay kaasal te loolu moo tax du sax en tant que artiste mais en tant que sénégalaise déjà bu jële jëlee artiste teg na le ay sénégalaise lañu ay euh, jullit lañu dëkk bi jàmm lañu xam mais tey bu ñu demee ba ay bakkan di fi root mu nekk perte yoo xamante ni ken mënu ko loolu kenn mënu ko indiwaat mën nañu fi indiwaat Sonko mën nañu fi indiwaat Macky Sall mais bakkan yooyu anañu kan moo leen indiwaat. te surtout di wax tamit ñi nekk ci prison yi nañ leen génnee bu fekkee mën mën sama baat am na benn quelconque kii ci dëkk bi man loolu moom loolu laay wax sànq rek maa ngi liir am koo xamante ne tànkam yi mënatul mënatul dara te jigéen la te pa ay parents am tamit ndeysaan ay laago lañu mu kooku tey euh, mi ngi doon jëriñ ay waajuram te tey mënatu leen jëriñ moom tamit bu ñu xoolee dootul mënati jëriñ boppam yaa ngi dégg loolu loolu dafa metti nañu libéré nit dof nañ libéré Karim otage politique yi nañ leen génnee dëkk bi ku nekk mën nga wax li la soxla ku nekk mën nga far fu la neex ñun mën nañoo far ku ne mën nga far sans ñu rayante suñu biir nañu génne suñu otage politique suñu mbokk artistes yi fa nekk sama moroomu jigéen yi fa nekk xale yi fa nekk ñoom nañoo xam dañ doon def bac defuñu bag loolu yëpp dafa metti nañu nañu nañu génne man je suis très neutre niveau politique mais mais kenn laal sama peuple sama Sénégal nañ ko bàyyi ci jàmm loolu laal laay am lu may wax mm. Euh, mami yow aussi lan nga gis ci euh, dëkk bi nga xam ne macha allah métti woon na trop tàngoon na trop en tant que tey benn sénégalaise nekk fii nii ci réew mi loolu lan nga ci gis at euh, genre ban message ngay lancé ñi nga xam ne que ne macha allah ñu ngi ci prison yi ñu ngi leen téye ñoo xam ne ay xale lañ xamuñu dara ñoo xam ne aussi xam nañ leen ci dëkk bi ban conseil nga leen di jox. je pense que je pense que defa dafa wax na lépp parce que ñun ci dëkk bi la ñu juddoo ci dëkk bi la ñu yaroo ci dëkk bi la ñu màggee ay sénégalaise lañ cent pour cent donc jàmm la ñu xam ci jàmm la ñu judd ci jàmm la ñu màgg te ci jàmm la ñuy ñaan yàlla euh, sax dakk donc du ñu def lu dul lu dul lu ko et euh, en tant qu'artiste xam naa ne place su artiste du prison waaw parce que artiste dafa nekk koo xamante ni day jëriñ société bi même bu dul artiste sax xale yi nga xamante ne nii ñu ngi leen téye ci kaso bi amal nañ njëriñ société bi parce que xale moo yor société donc bu ñu jëlee jeunes yi xam nga di jàpp de gauche à droite di leen indil ay problème tout le temps loolu mun na déstabiliser dëkk parce que jeunesse moo yor dëkk donc en tant qu'artiste ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi otage politique yi bàyyi xale yi ñu dellu ci seen ay famille bàyyi ñi nga xamante ni dañoo yor njaboot amal njëriñ société bi amal njëriñ seen i mbokk tamit ñu dellu ci jàmm ci seen kër ku ci mel ni Abdou Karim Gueye ku ci mel ni Nit Dof ah, ak ñeneen ak ñeneen ñooñu laa mën a citer parce que ñooñu la ñu bokkal mouvement ñu nekk ñoo xamante ni suñu ay frère lañ man tey ji par exemple Nit Dof même si musuma si waax musuma génn si presse wax ci Nit Dof dafa nekk koo xamante ni moo ma njëkk yéegal seen fii nii seen bu mag fii nii Sénégal donc kooku mënuma neutre ci ay affaire am you know euh, scène bu mag bi ma njëkk a joué fii nii scène show of the year la woon euh, c'était en 2015 je pense mu nekkoon stade Iba Mar donc kooku mënuma ñàkk wax ci ay mbiram Karim tey jii moo ma dugal ci misique kon kooku mënuma ñàkk ci wax wax ci ay affaire am donc ñi ngi ñaan gars yi nañ leen bàyyi ñu dellu seen kër yi parce que seen place du jeel you know sen place si seen njaboot la seen place si si seen ay fans la seen place ci ñi leen di bégee la dañoo am njaboot dañoo am ay jabar am ay doom donc nañ leen bàyyi ñu dellu voilà c'est exactement ça même si du ñu am occasion nag tout le temps di ci wax peut-être tey la ko yàlla dogal mais loolu la ñuy ñaan politique yi aussi nañu jéem a xool nu ñu diisoo seen biir parce que gis nga politique waxtaan la nañu waxante dëgg gis nga politique du xiiroo du ngaayoo politique waxtaan la man boog loolooy sama vision si politique. donc nañu xool nu ñu toogee xool nu ñuy waxtaanee pour luy jëmale dëkk bi kanam parce que loolu mooy dëgg pour man li si des yëpp ay détails la you know mooy li dafaa wax tey jii mun nañ am mun nañ amaat Sonko mun nañ amaat Macky Sall mun nañ amaat keneen ak keneen mais dootuñu amaat ñi dee. dootuñu amaat dootuñu doo dootu dootuñu amaat euh, ñi ñi jot a génn àdduna te ñaanuñu yàlla émeute yi fi jot a am aussi ñu ñu dundaat ko parce que métti woon na si ñun. you know so ñi ngi ñaan daal jàmm si dëkk bi di ñaan ñi nga xamante ni nii caabi féete na leen ginnaaw ñu dellu ci seen njaboot ci kàttan ni yàlla mbaaxam. wax dëgg yàlla du lu ñu neex lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy dénoncer la en tant qu'artiste lu ñuy dénoncer la en tant que nit parce que tey jii sama pire ennemi man yéenewu ma ko kaso donc euh, yal na leen yàlla may tawféex xam nga ñu gaaw delluwaat ci seen ay njaboot quoi allah Euh, kon nu ma leen ko waxee woon euh, saa su ne rek nee naa la à chaque fois mbégte at contentement rek la ñuy am ba tax na euh, bu ñu dalalee rek ay ndaanaan la ñuy dalal ba tax na tey dañoo dalaloon ñaari ndaanaan macha allah ñu koy wax mami ak defa ñuy def lu garaaw nag macha allah. waa def ma ma def comme que ñoom dañuy def rek moo tax ñu dee seen bopp waa def ma ma def xam naa dama leen di bàyyi leen ma noonu rek <laughs> xam naa dama leen di bàyyi rek euh, mm. macha allah kontaan naa trop trop trop trop waxtaan bi neex na trop macha allah dama leen di bàyyi rek euh, ngeen tàggatoo daal di wax li nga xam ne mooy seen dernier mot waa di la remercier Lisa franchement waxtaan comme waxtaan de finalement man damay fàtte caméra bi wudul woon lumière bi tàpp sama bët yi moom fàtte naa <laughs> mais di leen def ma ma def wa defkat yi nii la maa ngi leen remercier bu baax a baax si euh, jotaay bi neexoon na taarul woon na lool di nuyu waa Ndar di